xam nga mënoo ko xam parce que tamit ba ñun xamuñu loolu karo yi defar nañ karo bu naaj see naaj na naaj xëy nañ daal ñun man wax dëgg yàlla daf ma bett franchement daf ma bett. ndax ay mais dañ koy defaraat loolu mais non wax dëgg yàlla xamuñu. jëye bi am na ban jàngat nga ciy defaat tey. waaw jàngat bi mooy. voilà mbokk yi mbir mi mi ngi xewee fii si tubaa euh, Touba 28 benn immeuble moo daanu xamuñu nag ndax amoon na ay occupant wala pour le moment sapeur mi ngi sur place xool en tout cas immeuble bi amoon na ay commerce suuf amoon na aussi ay logement d'habitation si kaw yi nga xamante ni bon ay particulier ñoo fi dëkkoon jamono ji nag ñuy wax ak yéen kenn mën la wax li nekkoon si biir waaye daal sapeur ñoo ngi sur place le maire aussi ñëw na Abdou Lahad Ka pour la situation dina si nag gën a ñëw ak yéen bu gaa yi pare ci opération ñuy def

Check it out, check it out. yaa ngi si ginnaaw fees yëpp si ginnaaw la. ah. gars yi mag yi gars yi. voilà nous sommes avec le sous-préfet de Ndam bu xëcc rek ne mbapp nii rek parce amoon nañu fi nekkoon dana doon demee ne mais bu mu commencé benn pan bi dem rek la ñu profité sauvé ña nga xamante bi ñoo fa nekkoon ba macha après nag la soog a nag daal di daal di daal di complètement kon ñu sant yàlla bu na boobu pompier yi tamit ñu ngi leen di gërëm ndaxte bu ñu leen woowee bu mu commencé benn parti bi daanu mhm. ñu woo leen rek dañoo dog si ñu dimbalee ñeneen yi ñu mën a sauver ñu mën a mucc te loolu tamit ñu ngi si waa góor waa som waa sapeur pompier uh-huh. vraiment sauver au péril fexe nañu ba génnee leen si si si jafe-jafe uh-huh. ba après nag luy am daal di soog a am nag vingt minutes après sax le bâtiment bi soog a nag vous êtes convaincu il y a pas de disparition non non non ñu fu nekkoon kii génnee nañ uh-huh. parce que bâtiment bi bu fekkoon ni dafa toogoon benn dafa jékki-jékki rek rës benn yoon danger bi moom maa rek day taal yi mais dafa mel ni dafa avertir bu mu avertir. si la ñu daw si papar yow yi ñu génnee ñëpp ka xam ne ñu ngi woon si biir te bari wuñu woon noonu sax daal def na xëy na ñu ngi kii mais li ngi ñu ngi gërëm suñu borom ndaxte sutura mi ngi si ñu ngi sant yàlla mhm. ndaxte bu fekkoon ni eh, amoon na si jamono bi nga xam ne nit yi bare nañu Touba si mhm. màggal bi mhm. mais lii xam kon leneen la doon jëf tey te gàcce gu mag lay doon waaye yàlla def na sutura moo tax ma ne dañuy sant yàlla ndaxte kenn gaa eh, kenn kenn faatu si benn mm. bakkan rotu si mm. gaa ñu ñu si am ñu légèrement la rek mm. ñu génne leen sapeurs yi daw si ñu génne leen vingt minutes après nag si le bâtiment bi soog nag daanu les enseignements à tirer monsieur sant léegi nag enseignement ñu siy tiire yi moo di bu ñu tabax dañuy respecter normes yi dañu dul respecté norme mm-hmm. Sénégal da ngay gis ku yëkkati benn kii mm-hmm. bi sax du woon fondement wu benn kii euh, terrasse rek mu xëy suba rek di yëkkati mm-hmm. bu yëkkatee benn mu neex mu yëkkatiwaat beneen muy neex ngay topp noonu ba finalement nga yenn bâtiment bi euh, fondement bi nga yenn ko li xam ne atunu ba pare bu ngeen xoolee bâtiment bi tamit dafa am aussi euh, antenne Sonatel antenne Sonatel bi antenne bu diis la mu tegu encore si kaw bâtiment bi loolu yëpp tamit day tax batiment bi. Mhm. Euh, daal di daal di dem commencé di néew doole. Mhm. te bu fekkee ne nag les norme de mhm. construction respecté wuñ ko. lii rek lay jub. moo tax donc dañuy lancer un appel encore une fois aux populations. waxuma rek Touba bar fépp la Sénégal. tabax mhm. dañu koy xool mhm. tabax dafa mhm. am ñu ko moom tabax dafay jaar yoon moo tax li nga xamante ni bi boo paree sa njaboot sax moo siy dëkk wala ñeneen di fa tabbi kooku dafa war a am sécurité soo ko defee nag defin bi nga xame ni bi jaarul sécurité aarul mais nii rek lay jur yàlla nañu yàlla mos ah lii matuwaay yu jël rek mooy toujours toujours rek ñu vérifier tabax yi a contrôler yooyu képp ki nga xam ne nga war a construire dafa war a am autorisation d'abord ñu vérifier ko xool ko dégg nga maam yooyu aussi protection civile mhm. daf si war xëy di di gën di saytu mhm. bu ñuy tabax ñuy ñëw mais loolu mooy problème bi des fois mhm. dëgg yàlla merci yàlla daal lii moom fu mu amee fekk na dëkk bi nit ñi ñëw ñëwaguñu waay effectivement parce que nii moom bu fekkoon trois jours après wala quatre jours après la lii am merci plus de peur que de mal, c'était le préfet qui se prononçait sur euh, l'événement malheureux parce que mën nañu wax ah parce que benn immeuble moo effondré fii nii fii nii euh, si 28 heures. Euh, confrère bi ñu ngi koy wax sax ñu ngi naan y' a plusieurs bonbonnes de gaz ay gaz bon mën nañu jàpp ni nag à tout moment mën na explosé wu yal na si yàlla def ñoo ngi fii si 28 daal en tout yi moom dara de sotu fi dara de sotu fi fois mais nag mënoon naa gën a ñaaw bu fekkoonte ni bon am na mbooloo mu fi teewoon mi ngi am à cinq jours du grand magal de xam naa nag autorité yi ñu ngi affaire wu pour mën a jël li nga xamante ni moom mooy décombre yi jëlee fi fii ñu mën ko évacuer dëkk bi xaw a waaye nag leeruñu ndax am na nekkoon si biir waaye nag monsieur le sous-préfet moom la mooy bon ñoom kenn newul si biir waaye nag bala muy gën a leer aussi foog sapeur def liggéeyam carrément la on comprendra lu xew si biir réellement lu nu mën jàpp mooy amoon na ouvrier doon liggéey si kaw ouvrier yooyu nag bi ñu yëgee affaire bi mi ngi ñëw dafa signalé wu si lu tëb daw évacuer seen ñooñ yi ci suuf je pense que am nañu ñu flairé woon le coup aussi ñoom it danoo gaawoon dem loolu moo waral peut-être que am na ku kenn nekku fi mais li nu mën leer moom mooy que ni immeuble bi moom dafa màggatoon aussi ak nawet bi xaw naa gajaf ba lii ñu fi dëkkoon sax nee nañu bettuñu ko bettuñu leen woon kon on peut dire que ni daal fii si 28 situation bi moo ngi doon mbokk yi ñëpp ñoo ngi ñëw di xool situation bi kilifa yi ndaxte lii moom vraiment xaw na doy waar xaw waaye nag euh, bala ñuy mën a xam daal ce qui se passe réellement il faut que ñi nga xamante ne ñooy les soldats du feu sapeurs-pompiers ñi ngi nii ñëw commencé indi matériel yi pour xool réellement ce qui se passe euh, dedans voilà gis ñu ngi ñu liggéey bi ci liggéey bi on comprendra bientôt ce qui va se passer réellement ici euh, à Touba 28 Bécaye dama may benn kii rek kii moom occupant la bu nekk fii Bécaye Ndiaye lañ koy wax mooy administrateur site 28 pro di euh, caméraman bu Sen TV place am fii la bu 2STV autant pour moi place am fii la nekkoon d'ailleurs sax lépp la décombre yi yóbbu Bécaye lii loo ko jàngatee Bécaye Ndiaye. lu mu yéeme la rek euh, mais sant yàlla rek parce que mënoon nañu fee fekk ñuy monter wala mu fekk ñuy euh, liggéey bu boobaa day gën a métti mais xañ na dañu fekk sax ñu nekk ci terrain bi doon def doon tourner reportage ñu woo fi ñu nekk nañu bâtiment bi ngeen nekk dafa daanu loolu lañ yëpp. waaw élément yëpp ñoom ñu ngi woon ci terrain bi bon amul woon benn kenn ku fi nekk parce que moom presque presque màggal gi nii kenn du fi nekk ñoom ñëpp dañuy nekk sur terrain loolu la quoi franchement. at nga nga occupé place fii nag euh, yaakaar naa bi ma ko occupé yàgg na ndax euh, maa ngi fàttaliku 2007 bi sëñ Saliou mujjee woote xelkom dama ubbi place bi rek daal dem xelkom loolu moom du ko fàtte. 12 ans waaw 12 ans presque def naa ko. mais sentir nga ni fii dafa màggatoon wala. bon. bon xam nga mënu ma woon sentir parce que wax dëgg yàlla borom kër fonk kër gi la ndax da daan defaraat tout le jàpp ci di defar te kër gi tamit nekkuloon kër goo ay nit ñoo ci dëkk mhm. euh, luye ko woon tamit magasin yi la luye woon te magasin yi luye yëpp presque ay doomu aadama la ko jox ñu ci ñu ci dépense wala ñu ci dimbali ci lekk bu mu ci soxla wu ci dara lépp daf ko defoon te yàlla rek tax bañ naa ko ñun ñi sax dañuy tooñ léeg-léeg dañuy toog sax duñu koy mu ne mu ne yéen bu ngeen fayul ñi may jox ñii dañuy sonn il ngeen jàpp ci nga xamante ni vraiment nit ku baax la nit ku kii la kër gi kër gu màggal la pour màggal moo ko tax a jóg voilà ñi fi daan dal ñëpp màggal lañu daan ñëw dal yàlla def na nag euh, avant si lii xew xew na jaajëf Bécaye Ndiaye jaajëf merci fàttali mooy man bu 2STV fii nag moo doon studio am fii la doon defee lépp di réaliser mais tey boo ñëwee lépp li matériel ñàkk nga ko am dëgg la waaw loolu moom dëgg la moom dëgg yàlla la la boo doon ma ko jëndoon nañ matériel yu bees yëpp ngi ci biir xamaguñ li fi nekk moom daal doy na daal doy mhm, mhm. kenn mënu ko wax daal mais à quelques jours di màggal est-ce que du am gàllankoor sa liggéey loolu mënu am suñu gàllankoor ndax euh, ñu matériel bi ñuy liggéeyee suñu ñëwee ba màggal jot dañuy dindi boobu teg na le matériel 2S la ñuy utiliser yàlla def na matériel 2 bon moom la ñuy ñëw moom la ñuy tourner suñuy tournage après ci des garaawul daal voilà merci beaucoup Bécaye ah? sapeur yaa ngi noonu ci mbir mi di xool ñu ngi jëm a fexe voilà ba indi solution pompe bi lañ taal noonu pour arroser bâtiment bi xam naa dañuy bëgg mu gën a gajaf là on verra ce qui va se passer dedans fàttali nag bâtiment bi mu ngi à côté du crédit mutuel bu nekk fii ci Touba d'ailleurs sax daaneel na porte crédit mutuel ba loolu tamit ñu koy bàyyiloo xel aussi tamit euh, autorité yi opération bi je pense que mooy pour gajafal euh, décombres yi su ko defee dina neex a soulever ñu ngi doon wax également am na ay bonbonne de gaz bu fekkee am na fi dina tax tamit euh, mu mën a du siade effet yi loolu tamit moo ngi ci